seen parti wadaanatal mu laan yal na yàlla àtte Dieu est le plus juste des Dieu est le plus juste des juges d'accord alors Fatoumata kon dégg ko mhm. xibaar baa ngi noonu ajaratu a saa donc bàyyi na parti démocratique sénégalais ma bàyyi Euh, très bien euh, merci beaucoup euh, Mamadou Fafana concernant li nga xamante ne moom mooy xibaar bi et mu bett ñu bëri parce que maire Worissa ku ko xam-xam ko ak parti démocratique sénégalais ci loolu nag dafa nekk loo xamante ne ne day mel ni dafay conforme réconforter yenn nit yi la ñu doon wax ci jël signature ki nga xamante ne moom moo di le président maître Abdoulaye wadd ci wàll wu parce que gis nañ communiqué bi mu ngi nii génne nañ ko wax ni ki nga xamante ne moom moo di yenn eh, ci décision yi nga xamante ne ne parti bi jël na ko eh, concernant ay décision eh, ci nomination yu membre yu bureau fédération nationale bu cadre bi bokk na ci Lamine Ba fi mu toll nii moom mooy président bi Saliou Sagna mooy vice président bi Khadim Gueye secrétaire général bi président Lamine Gueye par rapport ak décision bi. non <laughs> lu bette sax parce que nag maire Waré Sarr ma koy nuyu au passage sunu yaay la nag moom wax dëgg yàlla nekk maire bu baax vraiment ku am engagement ku bëgg Ablaye Wade def naa ne Sénégal moom <laughs> ñëpp xam nañ ne. <laughs> maire war Sarr dafa bëgg Ablaye Wade loolu moom sincèrement euh, amul benn sénégalais bu koy naataable te tamit am na euh, loyauté moom ak euh, digganteem ak président Wade te président Wade aussi fonk na ko parce que aussi gis nañ ne seen ànd yëpp en tout cas am na ay cër yu bëri jox na ko. Mhm. maintenant nag le problème du fere c'est Karim Wade. Mhm. il il n'est pas là mais il décide de tout ça aussi c'est un problème il n'est pas là mais il décide de tout peut-être maire Wara Sarr mooy dernière victime bi mais boo remonter tuuti dans un passé récent beaucoup de grands dirigeants du PDS ont fait aussi les frais de Karim Wade mhm. mais il faut que Karim Wade c'est vrai c'est le fils de Ablaye mais tamit <laughs> affaire bi tamit euh, il faut qu'il se décide à venir faire la politique jiite parti bi parti bi am ay bànqaas parce que aussi PDS c'est un parti Euh, boo xam ne aussi euh, voilà def na vingt six ans d' opposition ñëw gérer pouvoir bi douze ans donc je pense que léeg la boo xam ne ñoom rek sax euh, moomatuñ ko donc jàpp naa ne daal lii lu regrettable la parce que aussi am na ànd yoo xam ne warul terminer nii quoi en fait. Mhm. moi c' est mon seul regret. parce que aussi loyauté dafa baax quoi parce que de plus en plus ci ci société bi ñuy vivre nii loyauté sax dafa mel ni luy manqué. soo gisee nag ñaari nit yoo xam ne dañoo ànd mu am loyauté muy président Wade ak euh, maire Waré Sarr mu dem mujjee nii donc day xaw a day xaw a doy waar Euh, vraiment ñu ngi koy masawu maire bi et di ko ñaanal aussi euh, mu xool bu baax fan lay teg tànkam pour euh, continuer ay activités politiques am parce que aussi am na très bien xam-xam Fatou Sow moo ko moo nekk léegi présidente national bu jigéen ñi vice présidente bi di Ndeye astu Camara moom nekk ci présidente d'honneur yi ak ndey gay Cissé Rekaye Daba Diouf ak ñeneen ñoom ñoo nekk ndax li bett na la ci biir parti démocratique sénégalais ñu commencé di gis ñenn ñi di tekki seen ndombal tànk Seck di génn ci parti bi. ah mais bettuma seulement kaawu maire Woré Sarr moom dina ma bett comme ni muy bette Sénégal yëpp donc nous sommes presque restés tous bouche bée ah. Hmm. da nga wax rek lu waay itam ak Abdoulaye Wade le président ko wor ma jox na ko cër vraiment maire Woré moom vraiment moom et dafa nekk maire boo xam ne muy politique mais kenn du ko dig say détails. déedéet. doo ko dig tendance ak ay détails xuccoo ak ay maa gën man loolu ça m'a toujours été. vraiment dafa nekk femme boo xam ne mère boo xam ne dafa ma toujours fasciné à travers son comportement politique sa position bu toogee assemblée lu la bëgg a wax dana koy wax. Mhm. waaw te yàlla dogal na ni ma ko gisee assemblée ñi fa nekk rek pouvoir opposition yëpp la jaaxasool mais am na fulla ak fayda gu mot sëkk que ne comme la ma ma fi waxoon président assemblée del ree mhm. del ree yow daal ñànk fas déjà kii boobu rek. Mhm. dafa seddal xolu Sénégal yu bari. Mhm. vidéo bi dem ba viral ci réseaux sociaux yi ba président bi di ree mhm. te effectivement Mame Diop pour mu ree c'est un problème donc c'est-à-dire que peut-être mu ngi politique mais elle a les épaules. Mhm. elle a la tête euh, sur les épaules avec sa bannière donc yàlla na ko yàlla woon yor. très bien te yàlla na ko yàlla gën a wane rek Abdoulaye Wade président. damay jàpp ne ren a encore perdu parce que bu fekkente ne njuumte am na président Abdoulaye Wade mu ne defaraat njuumte waaw génn nag c'est un geste à saluer je crois que parti bi am na ñoo xam ne war nañu mën a waxtaan seen biir cellule boo xam ne mooy defar liy yàqu PDS bu continuer nii muy continuer mais dinañ yàq liggéey bi président Abdoulaye Wade liggéeyuñu yëpp ñu ngi koy yàq et que patrimoine la boo xam ne faut demeurer au Sénégal mais nii nga ne moom la ko Karim Wade di nii nga xam ne moom lay doxe s'il continue comme ça